daaw ñëw nañu fekkee euh, procès bi gis Adji Raby Sarr taxaw la mu waxoon ci njalbeen ba loolu la waxaat ñu interroger ko mille fois mu waxaat la même chose que li mu waxoon ba ma ba ñu ko ba mu demee gendarmerie première fois ñi nga xam ne nag dañoo taxaw jàkkaarloog moom di Ndeye Khady Ndiaye ak Aïssatou Ba capitaine Touré ji ñu humilier leen ndax lañu ñu waxoon mënuñu cee dellu mënuñu ko dëggal dañuy jàppale képp bépp jigéen bu néew doole bépp jigéen bu ñu jaay doole bépp jigéen boo xam ne soxla nga ñu ànd ak yow xeexal la say ak ak say yeleef xool naka lañ lay jàppalee aussi pour nga delluwaat ci société bi ba nga mën a occuper place bi nga xam ni moom mooy moom nga yelool ci biir société bi nga bañ a bokk ñu bañ la beddi nga bañ a dund toute ta vie euh, une vie entre guillemets